lamba ja tas na mbar dem ci soor bare yaa ngi bàkku bi samaani ku mën yeesal diine doon waaja tarqiya mbooloo ma tabax jumaa ji déglu wax la yow atum ci doom na fu aama wasa sin taarix ba alhamdulillahi salaam lay tàmbaleeti fil kalaam musalliyan alal imaam yeneen ba jiite sang ma del si woo muriidi daam waa ju ko dégg ne manaam nan wuy si Mustapha lu njiitul muriidi Bamba bis bam jële Ahmadu daam indi ko Tuuba mu ne kaam ba tax muriidi ñëw màggal ko waroon naa bokk ya taarixu bi nay gëtëm cawam sasin lali xëtëm di fuglu Moustapha ak jëfam feesal na yaari fegg ya ma wax la lëf calam yaxal fésal jaloore yam saxal lisaanuhaa la ni waxal ma wax lu fuq nopp ya cawam sasin la Bamba dem babam tasin atum renam téeméer yat bi na ca sangu xarnu ya la bamba dem babam tasin atum renam téeméer yat bi na ca sangu ku samp di ko lawal téeméer yat bakk la war na say géwël yelloo nga mboolem mbakk cheikh moustapha mbakke yelloo nga mboolem mbakk tuubaa ngi raw na capital jumaam ju mag ji yaa ko yaal andil ko raay bi am di daal gàddu nga ngën ji raaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xàll ngir mi ñépp xaw wooteel ko ñépp wàbb ñëw jaaraama um nga lamb ja Cheikh Moustapha Mbacké jaaraama um nga lamb ya màggal gi indi na arab ak asiya ki ñooñ Europe kenn du la xarab ëllëg fagaa yàlla ya bis bi la yàllay dimbale bis bi la yàllay jéggale bis la bu yàlla yi séddalee ay may ca gaayu bis bi dee jar na war ci gaal di joow ba tabbi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw na ne gaayi Gambia bis bi jar na war ci gaal di joow ba bi Sénégal Maleek Guinée ki Portugal ñëw nañ ne gaayi bis bi lee jar na war janaaw mbaaro palaan yu dëkk naaw ngir man di teel a wuy si gaaw fëx leen te jàjj jar nay fandaan dox ci naaj bëreer ca man di ngeen di laaj bu dikkatee na ko waaj moo gitti bis yu mag ya am dee ko woote nel bërët ñaar fukki fan ci tamxarit mbokk ki jaambur xarit bu kenn geesu ngantees Cheikh Moustapha du woote neen bul wuute lii du neenu neen cëlëm cëlëm du ngeen ko seen fàdduna wuggi baadaya xam-xam ba raw na seeni daab xàmmee na sunna bi daab lamba ja tas na ma dem ci soor bare yaa ngi bàkku wi samaani ku mën a yeesal diine doon na waaja tarqiya mbooloo ma tabax yow atum ji doom ba saa ay na fu ama wasasin taarix ba